qui valorise leetre humain grande à tel point que mënuñu jël en compte un enfant ba enfant boobu di retrouver wu. ci pouponnière. ci pouponnière. Mhm. wala ci mbedd mi wala ci feneen. Mhm. donc pour Mandela c'est vrai bon après euh, les gens feront leur enquête les euh, conclusions sortiront. Mm. mais la question fondamentale mooy si la famille est la cellule de base de la société africaine la famille africaine telle que ñun lañ ko mus a décrire. Mm. famille boo xam ne maam dafa am rôle. bàjjen am rôle nijaay am rôle papa am rôle yaay am rôle naka la benn xale di juddoo ci famille boobu ba noppi di tumurank c'est la question que j'aimerais poser aujourd'hui à notre société ñu xoolaat suñu bopp parce que ni ñuy gisee xale yi di sonn soxna yi di sonn ak système carcéral bi criminal criminalité bi léegi ni mu téelee avec les jeunes ak étrangers yi seen comportement dans la société mm. da ngay xam ne nous, est-ce qu'on est, est-ce que c'est pas parce que notre société qui est en train de changer Est-ce que c'est pas nos familles qui perdent les valeurs mm-hmm. qui, fuient leurs responsabilités mm-hmm. man foofu laa bëgg ñu andi ko parce que si aujourd'hui nos familles africaines reprennent leur rôle l'État est obligé de suivre le rôle parce que l'État c'est nous bu fekkente ne ñun sénégalais yi. mënuñu accepter xale bu ndaw nga nga génn sa kër bàyyi fa sa doom mu nekk dans les meilleures conditions nga génn ci mbenn bi gis xale boo xam ne danga koy xool xam ni kii bu sa doom nekkoon ci état bi jël nga ko yóbbu ko hôpital mm-hmm. mais ça ne nous pose aucun problème. c'est vrai ils même partie du décor. après on va dire c'est l'état qui est responsable mais l'état c'est nous. mais aussi Bal au-delà de de cette famille sénégalaise nga xam ne mun nañu wax ne elle est problématique mais la place de l'État du Sénégal euh, par rapport ak li nga xam ne euh, moo nekk euh, l'humain parce que des fois xale yi nga xam ne qui se retrouvent euh, si yooyu les pouponnières c'est des enfants yoo xam ne peut-être ay xale yoo xam ne dañuy juddu si anam boo xam ne comme on a une société boo xam ne des fois man je me dis qu'on a une société assez euh, brutale par rapport ak euh, suñu ay euh, gis-gis si ñooy les xale le rôle de l'État naka la war a taxawee parce que dans d'autres sociétés ñoom dafa am place bu am solo boo xam ne dañ ko jagleel fii xale yi suñu ay ministère suñu ay président wala sax suñu ay politique ban projet leen consacrer à ces enfants xam nga c'est une question pertinente mais complexe xam nga une société c'est d'abord les valeurs mhm. société valeur la quand une société perd ses valeurs day perdre son identité te valeurs yi nit ñi ñooy incarner valeur bi donc quand une société valorise l'humain c'est ça qui importe maintenant bu fekkente ne ñun dañu am état boo xam ne l'état n'est n'est pas le produit de la société C'est un État hérité du colon. Mm -hmm. Et je l'ai dit dans territoire dans l'ouvrage que je sors mhm. bientôt. Où je parle des dix fondements et je l'ai dit que tant que amuñu une une une refondation sociétale une refondation étatique. Mhm. parce que c'est le citoyen qui fait naître le vrai État. Mm -hmm. Un vrai citoyen va toujours chercher à avoir un bon État. Mais un citoyen qui n'a pas conscience de son rôle, de ses responsabilités. politiciens yi dañ koy nax tous les jours. Mhm. te politiciens yi suñ koy nax tous les jours le résultat c'est quoi c'est que genre état yi la ñuy am. état boo xam ne day ñëw nekk dans une logique de servir des intérêts étrangers nekk dans une logique d'un programme politicien rapide naka lay endetté woo yëkkati tout de suite quatorze milliards def ay terre alors que ne boo génnee ci mbedd mi les gens meurent de faim mais c'est pas ton problème parce que tu sais très bien que sénégalais yi loolu dérangé mm. donc l'État à notre image. Mm-hmm. état bi ñu am nii c'est à notre image. Mhm. parce que état xam na ne sénégalais yi d'une manière générale politique euh, bi ñu gëm mooy politique xam nañ ne politique politique la. waaw Sénégal sañ la koy wax. no mm. ah non politique politique la. Mhm. politique waraate la politique wax du dul dëgg la politique noolooy politique donc Sénégal dafa dem ba dafa d'accord ne lii mooy politique alors que loolu du politique. léegi politicien bi fekk ko foofu fekk ko ci logique boobu alal ji nga xam ne tey dañu waroon nekk dans une de. bâtir le vrai type de Sénégalais xale bi bu juddoo ñu fexe ba mu nekk un bon citoyen citoyen bu am ay valeurs am ay compétences gëm histoire am gëm ay maamam gëm boppam gëm avenir am gëm famille mm-hmm. gëm dëkkam gëm boppam mm-hmm. c'est ça le problème sénégalais bu juddu nous avons l'obligation c'est un devoir pour ñun ñu def ci sénégalais bi loolu parce que buñ ko ci deful mm-hmm. mais sénégalais boobu da il cesse d'être une solution mais il devient un problème. C'est vrai. et c'est eux tous les jours qui nous causent tous les problèmes que nous voyons. Mm-hmm. kuy jaay reewande ci dëkk bi jaay xamadi buñ la joxee liggéey doo xëy si heure doo wàcc heure. Mm-hmm. boo joxee rendez-vous faussé ko. Mm-hmm. boo gisee portable jël. mais lu tax comportement boobu mais parce que c'est l'absence de valeur l'absence d'éducation loolu suñu système d'éducation suñu mm-hmm. système de santé suñu ordre social boo génnee ci mbedd mi parce que euh, da nga koy da koy gis ah da ngay gis ne Sénégal c'est comme si yow quand tu es dans la rue espace la boo xam ne lu la neex def la. Mm-hmm. Mm-hmm. alors que ne boo demee au Canada nga dem France dem États-Unis mais boo génnee ci mbedd mi. ni ñu rëddee mbedd mi rek dañ lay wan ne la mbedd mii du du du lu neex waay def. trottoir bii ngay dox. lundi fii ngay gaare sa oto mardi fee nga koy gaare amoo droit yéeg sa oto ci trottoir l' li ñu organiser espace rek boo juddoo ci dëkk bi da xam ni. réew mii dañ koo teg ci yoon. Mm-hmm. même l' espace te di tu es dans un espace organisé mais bu fekkee ne dañu nekk ci réew mu nga xam ne état bi amul volonté refonder. le vrai type de Sénégal le vrai type de Sénégalais. dafay jouer ci la politique politicienne parce que c'est avec ça qu'il qu'il s'enrichit mhm. et c'est avec ça aussi qu'il qu'il qu'il garde le pouvoir parce qu'on a une très mauvaise définition de la politique mhm. on dit que la politique c'est comment conquérir le pouvoir mhm. et comment le conserver et alors que pas de la politique la politique c'est comment faire pour que ta nation gère ses intérêts et ses valeurs comment faire pour que les Sénégalais conservent les valeurs qui font d'eux des Sénégalais et comment pour que les Sénégalais puissent tirer le maximum de leurs intérêts. Mm-hmm. c'est ça faire de la politique. mais bu fekkente ne ñun moo tax état bii ñu am fii réseaux sociaux yi ñooy génne information bi ñoom ñu door a réagir. Mm-hmm. mais mm-hmm. bu nekkoon un état sérieux état bay génne information. exactement service municipal de l'enfance parce que loo mën a gis ci àdduna ça se passe dans une municipalité. au Sénégal. c'est ça xam nga moo tax gëm bi ma gëm décentralisation les gens pensent que c'est pas parce que dama xam mhm. lan mooy décentralisation bu doon politique cent la décentralisation mooy cinquante pour cent yi c'est vrai municipalité tey jii moo war a xam lan moo xew sama espace mhm. ponière bu fi amee dama war a dem di visiter xale yooyu mhm. municipalité loolu mooy rôle c'est la protection de l'enfant urbanisme proximité gestion des marchés assainissement le proximité nit ki li muy dund au quotidien c'est quoi loolu rôle municipalité mais suñu politique de décentralisation comme vous le mm-hmm. savez Macky Sall moom pour moom décentralisation mooy be maire bennoo nga wala maire opposition mm. sa politique de décentralisation se limite à cette question mm-hmm. bu dee maire bennoo nga xam na nu muy def ak yow bu de maire opposition nga xam na nu muy def ak yow ça si se limite à ça c'est donc tant qu'on dans ça on va être dans développement mm. on va être dans on va être dans les difficultés on va être dans le désordre dans les rues on va être sénégalais bu ñëw gën a doy sa morom demal ci et puis je vous conseille vous les journalistes mm faites tout pour entrer dans les polices commissariat de police mm. ngeen fexe inviter les adjudants de police qui s'occupent des enquêtes mm-hmm. ñu wax leen ci criminalité bi xew ci dëkk et vous di ngeen jommi ci léegi ban criminalité lañ am mm-hmm. vous allez vous allez rendre compte parce que man récemment toog ak et comme voilà je pose des questions mais dañ raconter ce qui se passe tu te dis mais attends nous mais quelle jeunesse on est en train de produire mmh. ces bon, gens-là quand ils vont avoir quarante cinquante ans mmh. mais c'est quels Sénégalais ils vont être mm-hmm. ñooñu ñoo war a fay impôt mm-hmm. ñooñu woo léegi ñoo war a def les inventions ñooñu ñoo war a nekk dans les entreprises di liggéey nekk war nekk des pères de famille nekk des mères de famille wala yar seen doom qu'est-ce qu'on est en train de faire de ce C'est vrai. Mais par rapport à ce dossier précis, euh, que qu'on a vu euh, le procureur euh, Balla pour si peu euh, mu gaaw autosaisir et là on parle euh, ay xale yoo xam ne ñu ngi wax si mbirum xale yoo xam ne dañoo ñaari xale yu ñàkk see bakkan ak ay xale yoo xam ne ñu ngi si euh, benn situation bu alarmante ñu ngi wax sax ay dañoo nekk si li nga xam ne moo nekk malnutrition tey est-ce que jotul le procureur autosaisir par rapport à ce dossier mais mais il va s'autosaisir c'est évident parce que euh, xam euh, nga quand un dossier devient politique mm -hmm. euh, du coup ça devient intéressant mm, de toute façon ndee la nee na yéen waaye Pastef yéen a ko infiltré de ah écoute moi je le dis je ne tire pas sur une ambulance donc li ma mën a wax rek mooy euh, c'est dommage mm. aujourd'hui tey moo tax même je le dis parce que man j'aime me projeter sur ban Sénégal lañ soxla. Mm. normalement on devrait avoir des procureurs yoo xam ne ñun ñoo leen fal. non c'est vrai. rien à faire de la politique. Ouais. qui savent que ils sont là pour mm. dix ans. yooyu si je suis un excellent procureur et que je poursuis pour l'intérêt des populations de tel département qui m'ont élu mais am naa chance am beneen niveau ce procureur là. mais il n'en a rien à faire bu kan mooy ministre ku dul ministre. Mhm. il sert le peuple sénégalais. moo tax gis nga suñu sous-développement boo koy analyser rek da ngay xam ne on a un problème systémique dans ce pays. Mhm. le système qu'on a dans ce pays tant que mi ngi perte continuer tant que wu ñu suñu société par nos valeurs. l'importance de la science éducation. Mhm. tant que xoolaatuñu suñu système étatique bi est-ce que c'est un état réellement souverain. ma jox leen exemple. on dit que Sénégal c'est une démocratie on a une constitution. par le peuple du peuple et pour le peuple n'est-ce pas. et que on a trois pouvoirs. l'exécutif c'est vrai le président de la République et les maires sont élus par les populations. dernièrement sax léegi les maires sont élus directement ce qui est bien législatif. Tu as des députés qui sont élus par des départements, mais il y a une, <laughs> une bonne partie des députés qui sont choisis par des chefs de partis politiques. Mmh. qui fait que quand bu ñu nekk dajale assemblée nationale ñii dañuy gas ñii di suul ndax kii day xam ne man Moussa Balla Fofana waa Bawol ñoo ma fal def ma seen député bien que sama parti moo ma tànn par exemple mais waa Bawol moo ma fal man liste départementale laa fal mais du dem assemblée nationale dafa il y a un contrôle social qui s'exerce sur moom. Mhm. parce que fa ma jugee am na nu ñu may xoole mhm. am na waruma ñàkk jom waruma ñàkk fulla waruma def n'importe quoi. c'est vrai. parce que dans cinq ans damay rendre compte. Mhm. donc même assemblée nationale. il y a un benn type de député bu nga xam ne il est très bien a tout type de député yoo xam ne mais lu gars yi gas ñu suul. léegi nag ñëw leen ci justice. wax leen ma ban acteur justice moom la askan wi di tànn muy rendre compte askan wi kan. Mm-hmm. <laughs> ça n'existe pas <laughs> ouais. Mm-hmm. notre pouvoir Amoul. judiciaire est, est un pouvoir que de nom parce que comme on est dans une démocratie et que le pouvoir est consacré par les citoyens. Mmh. C'est le citoyen qui fait de Macky Sall le président de la République. Mmh. C'est le citoyen qui met, qui fait des maires ce qu'ils sont. C'est le citoyen qui donne naissance aux députés et à l'Assemblée. Qui donne naissance au procureur? Qui mm-hmm. crée le procureur? Qui crée le juge des libertés? bañ nañ ko ba le conseil supérieur nga xam ne conseil supérieur de la justice la waroon doon dañ ne conseil supérieur u magistrat yi mhm. mais la justice c'est pas pour les magistrats la justice c'est pour les sénégalais mhm. le conseil supérieur de la justice mhm. te espace boobu dafa war a nekk benn espace boo xam ne espace boobu moo war a nekk l'espace faîtière ña fa war a toog nit ñoo xam ne dañu wane seen ngor wane seen njub askan wi tànn leen wala seen i peer tànn leen yooyu yi rek seen organisation bi nga xam ne bu nit juumee yéen yéen a koy àtte sax mais seen i nit a koy tànn kon mm-hmm. appelle euh, par les pairs mmh. tribunal des pairs tribunal des pairs mmh. au mm-hmm. benn justice et nous savons très bien que c'est pas un pouvoir parce que c'est mm-hmm. pas constitué par les citoyens et moi le Sénégal dont je Sénégal la bu nga xam ne département bu nekk day tànn procureur département bu nekk day tànn benn juge des libertés juge liberté di protéger les libertés des individus procureur bi di poursuivre ba noppi même conseil supérieur de la justice et pas de la magistrature ña fay toog ñu ëpp sax mën nañu juge des libertés yëpp dañ fay siéger mhm. ñoo fay ëpp pouvoir judiciaire na fa am repré pouvoir exécutif na fa am représentant législatif na fa am représentant société civile na fa am représentant na nekk foo xam ne ñëpp mais ña fay ëpp na doon ay magistrats yoo xam ne dañ leen fal ñu nekk des juges qui protègent la liberté des citoyens mhm. et benn dëkk bu nga xam ni l'exécutif ne pourra pas faire ce qu'il veut na ñu xool dossier euh, bi ñu dund ñun mais toute l'histoire de Pastef bi nga xam ne fa la bokk Pastef bi ñu nekk mais toute notre histoire problème yi ñu gën a am mais c'est des problèmes judiciaires mm-hmm. amuñu problème par rapport à l'analyse qu'on fait de notre situation économique amuñu problème sur la sur la planification du développement amuñu problème sur l'analyse sociologique que nous faisons de ce pays amuñu problème ak loolu sénégalais problème bi ñu am mooy dossier judiciaire. Hmm. c'est vrai c'est vrai euh, Balla merci euh, Mamy par rapport ak euh, ce dossier euh, Ndella Madior mi nga xam ne euh, dafa ubbi pouponnière am matul sax at mais gis neen scandale bi nga xam ne fës nemmeeku neen ko fa ñu ngi wax ñaari xale ñàkk neen ci seen bakken ay image yoo xam ne anam bi nga xam ne ñu ngi koy wone wane suñu xam-xam màccul ci wàllum pouponnière mais yaakaar naa ni amul benn norme boo xam ne rek garantie na pour xale yooyu nekk fa ci norme yi nga xam ne peut ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na si xale noonu la war a évoluer si boobu les pépinières répondre aussi yooyu les normes on a vu Ndella mhm. génn avec pour man euh, entre guillemets avec des yoo xam ne dafa bëri ay légèreté parce que mu ngi jël euh, li nga xam ne moo nekk faute bi di koy sànni si ñi nga xam ne mooy nunu pour ne pas dire jànk yi euh, d'où ma question est-ce que pépinière da nga ko war a jox ñi nga xam ne mooy ay jànq parce que man sànq maa doon def ay recherche pépinière ñi nga xam ne ñoo fa war a nekk pour euh, euh, mm-hmm. dimbale yooyu les xale au moins dañoo war a def benn formation boo xam ne six mois pour mun a euh, nekk xam ne ñu toppatoowee li nga xam ne moo nekk xale yi mm-hmm. même matériel yi nga xam ne dafa adéquat pour mun a gérer yi nga xam ne moo nekk pouponnière des fois si médecin yi nga koy jëlee mais dañu gis ne Ndella amul re remplirul benn règle par rapport à ça est-ce loolu aussi renvoyé wut à ce que lu muy wax suñu légèreté par rapport ak l'humain Il a extrêmement raison, je pense, dans qui est très profond d'ailleurs. Mhm. permet effectivement de comprendre euh, comment nous nous réfléchissons et surtout comment nous fonctionnons. Boyhol, et d'après ce qu'il dit, le problème est beaucoup plus profond ouais. que ce que l'on pense. Quand réellement, am nañu euh, euh, souci ci dëkk bi par rapport ak beaucoup de types de comportements yoo xam ne lu ñu war a mën a corriger la. Moi, cette affaire-là, mm. j'avoue que j'ai été très prudente pour ne pas vouloir euh, pour la toute bonne et simple raison que je juge que c'est une affaire tellement grave qu'on ne doit pas en parler avec autant de légèreté. Quand il s'agit de parler euh, vraiment de ce qu'il s'agit de la protection des enfants et autres, les questions sont euh, tellement sérieuses. Et là, il parlait, je l'écoutais, mais j'étais en train un peu de s'amuser à voir est-ce que réellement nous, on a un cadre juridique mm. euh, par rapport à la protection de l'enfance au Sénégal Je te dis que oui. parce qu'on nous euh, li nga xamante ne moom mooy principal instrument juridique euh, destiné à assurer la protection juridique des enfants c'est une convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant datée de 1989 mais ratifiée par le Sénégal depuis relative à la pro protection des enfants, une loi qui entend améliorer la situation des enfants protégés par l'aide sociale à l'enfance, interdiction des placements à l'hôtel, fin de sortie sèche à la majorité, meilleure protection dalle contre les, contre les violences. Donc, il y a et il existe bel et bien un cadre juridique. Mm. léegi pour répondre par rapport ak li nga wax man euh, duñu spécialiste. comme mm-hmm. tu l'as dit. mais on sait que su fekkente ne par exemple dans une structure hospitalière. Mmh. il un service qui s'appelle maternité. Mmh. et dans maternité. il y a beaucoup de sous-service benn bu tudd nurse. Mm-hmm. parce que loolu li ñuy tax ñuy koy lijjanti mooy xale yi nga xamante ne dañuy door a judd nekk ay bébé. Mm-hmm. ñenn ñi xëy na am na ci ñu ciy soxla ay assistance médicale. ñeneen ñi même bu ñu nekkul sous assistance médicale dañoo laaj tellement de protection parce que fragilité bi nekk ci ñoom. Euh, par rapport ak environnement ak cadre de vie bi ñuy dund lépp dafay compter effectivement je ne pense pas qu'il suffit d'être euh, une bonne ou une domestique mm-hmm. pour pouvoir gérer un bébé mm-hmm. si dans cet hôpital-là toutes ces personnes qui s'occupent de ces bébés ont des ont des tenues euh, spéciales pour ça portent des masques portent beaucoup de matériel yoo xamante ne mooy protéger pas ñoom mais protéger xale bi c'est mm-hmm. parce que ça a son importance si on demande même même bu ñu nekkee ci biir kër yi yor suñu nen ne euh, on demande énormément de règles de sécurité yu jëm ci wàllu stérilisation ak yeneen yi ni mel nga xam ne moom la xale bi soxla pour man élever un bébé ne doit pas être chose facile et je pense que li war a gën a jafe ci réew mooy ñu ubbi pouponnière maanaam nga mm-hmm. am facilité wu am tey jii ne c'est pas parce que j'ai je suis femme j'ai une fibre maternelle euh, que ne dama bëgg ay xale rek Euh, sama bëgg-bëgg muy ubbi pouponnière ba tiens écoute pouponnière war na mën a doon lu yomb ci yow en termes de documents à fournir en termes de législation et puis en termes de contrôle mm. et c'est vrai que dans ce pays mën nañu sax accorder yedd yi mais après on n'a pas de suivi et ça c'est un problème boo xamante ne duñu ko constater rek ci cas yi dañ koy constater de manière générale mm-hmm. dans ce pays il n'y a pas de suivi d'ailleurs dans aucun dossier sérieux et lu jëm ci wàllu xale nga xam ne jagleel nañ ko ministère Au-delà des ministères, il y a des départements. Comme il dit, niveau de la commune, <laughs> normalement, c'est-à-dire, c'est toute une chaîne. mm boobu bu amee benn fil bu ci dagg rek leneen lu ci topp dafay rompre lu bari ci système bi te boo joxee nit responsabilité ne ko ubbil poponière autorisé naa la ko waa ndax yow mi ko ubbi xool nga ba xam ndax moom am na ay moyens mhm. yi nga xamante ne moo koy permettre dëgg-dëgg xale yi mën a màgg dans d'excellentes conditions comme moi j'ai vu quelques images de Ndella Madior qui fait visiter à nos confrères de Sénéweb euh, sa pouponnière je vois de grands lits euh, à même par terre je vois certes des berceaux mais c'est-à-dire tu te rends compte que le nettoyage a été fait parce que comment les draps sont pliés par rapport ak ñun image yu ñu gis avant je dis est-ce que ñun on est dans un état sérieux voilà c'est la com on ce est... qui est en train de se passer si Ndella Madior les faits qui lui sont reprochés elle est réellement coupable de cela je pense que à titre d'exemple que pour moom et que pour keneen ak keneen mu war a mën a nekk frein pour que boo koy xalaat nga bañ di ko def xam nga xale moom mooy loo xamante ne en fait euh, non seulement dafa am ay droits yoo ko protéger que nous tous on connaît mm-hmm. les droits de l'enfant et tout ça pour ne pas faire de la théorie et revenir un peu sur ces aspects de littérature mais on sait xale dafa am euh, noo ko war a sàmmee ak noo ko war a dencee gis nga doomi bitim réew mhm. nekkul looy caaxaane moom la ñu gën a fonk kooku mënti dox ci suuf doomu américain boo waxee dañ naa la mooytul de mhm. doomu américain la bu mënoo koo génne ca dëkk ba noonu mënoo koo dugalaat ca dëkk ba noonu yow mi yaayam ak papa mi ko jur sax c'est-à-dire que yow état bi moo la ëpp droit ci sa doom am na loo xamante ni mënoo koo def mënoo comporté woo noonu on n'a pas les mêmes cultures ici nag on veut nous dire que parce que tu es une femme boo xamante ne ni jàpp nañu ne et c'est encore plus grave pour Ndella Madior mm. et je vais te dire pourquoi parce que Ndella Madior est une femme politique entre guillemets bokk ci ay mouvement politique di véhiculer benn message am lu muy gëmloo ñenn ñi nga xamante ne xëy na ak moom ñoo bokk idéologie ci wàllum politique kooku nga xam ne daf ñu war a représenter ëllëg wala am na benn xeetu taxawaay ci réew moo xamante ne danoo gaaw a def nit ndaanaan Sénégal mhm. c'est-à-dire que nga am benn type de comportement wala nga am benn type de longage à la limite dañ lay jàppee guerrier vite fait ñu ne kii guerrière la parce que gis nañu yenn position yi muy am yenn biir yi muy am alors mbir mi du ay affaire u njàmbarte mbir mi xam-xam la mm. ak sañ-sañ boo xamante ne yoon moo la ko war a mën a may parce que on n'est pas dans un marché que je sache mm-hmm. on est dans un pays organisé avec des personnes civilisées et encore moins quand parle vraiment aujourd'hui de ce qu'il s'agit des enfants pour mm-hmm. moi qui est une chose tellement importante que nekkul loo xamante ne dañu ko war a caaxaane pourtant fii la ñu toog benn hôpital bu nekk ci Tivaouane lakk ay nouveau-né seen bakkan mm-hmm. ñu naqarlu ko def fi deuil national ak leneen lu ci topp comment peut-on comprendre une femme qui est dans ce pays yor pouponnière qui lui a donné ses papiers qui lui a donné cette autorisation à partir de quel moment on a jugé que Ndella Madior avait toutes les compétences mentales psychologiques ak euh, matérielles ak leneen lu ci war a mën a mm-hmm. toppi pour gérer xale parce qu'on parle de de nouveau-nés qui demandent beaucoup d'attention et beaucoup de patience mm-hmm. Et nous-mêmes, chez nous, parfois, on a du mal à supporter notre propre enfant. Mm-hmm. donc qui on doit être ñun ak nan nga war a mën a mel dëgg-dëgg ci ay qualité requise yu ñuy soxla ci nit pour nga war a mën a yor ay doom waxuma la benn waxuma la ñaar waaye yu bari ci sa biir kër. pourtant nag sa a été drôle pour certains la Ndella jox disait que yenn ci xale yi def ñii mu tuddee Ousmane Sonko ñii mu tuddee ma Pathé ñii mu tuddee ma Samba. ay Marème Faye Sall Macky Sénégal dañ koy jàppee lu drôle. Mm-hmm. à li limite dañ koy sax même jàppee acte bu héroïque maintenant est-ce que après ce qui s'est passé li xew nii ñun tamit wax dëgg yàlla waruñu mën a toog ñu posé wu la question ndax ñun vraiment Ndella Madior li ko daal nii est-ce que au-delà de l'État ñun it amuñu ci part de responsabilité. Mm-hmm. mais mais mais mami dogguma dogguma la c'est juste pour vous relancer par rapport ak tour yooyu li nga xam ne mën nañu wax ne tuddeewul benn njàpp tuddeewul euh, ki nga xam ne moo nekk euh, mami. dafa am des yenn certaines personnalités bien précises yoo xam ne entre guillemets tekki nañ dara ci dëkk bi yu mu ciblé tuddee leen te sànq ci communication ndee la parce que man sa dossier mm-hmm. dama koy suivre de très près mu parle mu ngi xaar nee na waaye ministère de la de la santé dañ koo iñaane parce que mu ngi xaar ay financement yoo xam ne dafay war a jógee un peu partout surtout à l'étranger tey jii est-ce que parler de traite des enfants par rapport ak li nga xam ne moo nekk sa cas ndee la nekk na carrément une exagération parce que selon quelques indiscrétions cette information n'est pas vérifiée euh, am na ñoo xam ne dafay ñëw di fay jëli ay xale moyennant ay euh, somme d'argent yoo xam ne yu yu yu am maanaa di koy teg ci loxo ndee la tant que cette information n'est pas ouais. vérifiée je préfère ne pas m'y tu vois ne voilà. pas y aller euh, mais lenn daal xam naa ko mhm. mooy ne xam nga li ma lay wax gis nga parfois Sénégal c'est-à-dire dañuy li sama maam naan dañuy téppatiku nit maanaam dañuy fekk nit mu nekk ci benn état ñu ne ko kaay ñu yokkal la tuuti te lépp nag ay kaf ak ay foo ay ree la ñu koy jàppe njaab dama ne mhm. ubbi pouponnière yor orphelinat di gérer ay xale moo xam ci tranche d'âge bu mu war a mën a commencer moo warul mën a nekk une chose facile ici c'est vrai qu'une seule personne gère parce que Ndella Madior moom moo koy gérer mhm. aujourd'hui même bu fekkee dafa am ay fonds yuy jógee bitim réew di ñëw mais fonds yooyu sax xanaa dañ ko war a contrôler mm-hmm. surtout fonds yooyu sax warul mën a dugg facilement c'est-à-dire que moom parce que elle a une pouponnière elle doit avoir des fonds yuy jógee Taïwan wala yuy jógee je ne sais où que dafay ñëw facilement elle encaisse l'argent après jeex na puis on n'en parle plus non dans un état sérieux les choses ne se passent pas comme ça état bu amul contrôle ci li nga xamante ne moom moo nekk di xew ci réewam c'est extrêmement grave je sais pas qui le disait tout à l'heure je pense que c'est Balla qui le disait que toog ba état réseaux sociaux di la informer ci mbir moo xamante ne nii maanaam yow à limite ci sa gëstu la waroon a doon parce que bu fekkoon yaa ngi joxe ba pare topp ci di contrôler derrière di nga xam lu dox ak lu doxul mais xanaa du ma ne jox naa mami rek orphelinat wala jox naa ko rek pouponnière maa ngay gérer mami daal elle fait que de belles actions vraiment c'est bon c'est bien et mm-hmm. mais même enfants yooyu xanaa du dañ ma ne da nga yor lii rek da nga koy téye amul déclaration amul maanaam état civil amul dara loo xamante ne ni daf ci war a mën a topp lu war a nit war a mën a gëstu donc xale yooyu boo moytuwulee ci ignorance su ñenn ñi mën nañu dem ba nekk ay apatrides dans un pays où ils ne sont pas déclarés et la situation est beaucoup plus grave ci vois pourquoi je ne veux pas à la limite parler de ce sujet là tant que xawma man ndax nee la maajoor li ñu koy tuumaal moo ko defam déet bu ko defee nag elle mériterait d'être punie que mu xam ne ay bakkani doomu aadama kenn du leen fowe fii ay nit a ngi fi ci ay jigéen di bëgg ay doom dem fu ne ñaan lu ci sëriñ faju ci docteur def ay étape i étape thérapie wu thérapie mënuñoo fexe ba am benn bant bu leen yàlla may mhm. yow nga ne da ngay def lu baax naam yaa ngi dajale ay doom waaye doomu jàmbur yi boo leen mënut a mhm. waaye yow tamit doo sàkku pexe boo war a mën a def mm. lan moo ci sunu yoon boo ko tuddee Marème fay Sall après. tanaan Marème Faye Sall set si. boo ko tuddee keneen ak keneen tuddee ko Ball tuddee ko Moustapha et après je et après est-ce que tur bi moo important wala xale bi nga xamante ne moom la ñuy jox tour bi kookee ci boppam la ñu war a mën a taxaw ci sàmm ko. on naa la mhm. responsabilité. de protéger ses enfants et c'est vrai que c'est un problème Ndella Madior moo ko lancé mais la question est beaucoup plus profonde mmh, tous les jours que Dieu fait tu croises des enfants ici qui errent dans la rue ku yalwaan sax yow yaakaar nga ne sa doom bi moo war a mën a doon nag waaw ki nga xam ne moom ngay utiliser mm-hmm. pour que nit ñi mën a am man de ci yow jox la xaalis alors que teguwul fenn mm-hmm. pour man am na ci ay parents yoo xam ne sax yoon daf leen war a woo ne leen li ngeen nekkee fan ngeen ko teg mm-hmm. parce que jur doom du rek yéeg ci taabal wàcc yaa ngi dégg uuf ko rek ànd ak moom di gangar gangar yi dafa am lu la war ci moom loo xamante ne da ko war a def et loolu nit ñi dañ cee war a taxaw bu ci nit ñi taxawul que l'État prenne ses responsabilités par rapport à cette affaire la mm-hmm. merci beaucoup Moustapha. par mm-hmm. rapport ak euh, cette affaire sànq euh, euh, déglu neen Balla mami aussi mu emprunté li nga xam ne mu nekk même paille ki nga xam ne mooy Balla Moussa mu mel ni comme l'affaire Ndella Madior tey on parle de Ndella Madior. mais Ndella Madior euh, par rapport ak suñu société sénégalaise par rapport ak euh, ñun ñi nga xam ne moo nekk ñun sénégalais yi ak même l'état du Sénégal est-ce que cette affaire Ndella Madior nekkul juste la partie visible de l'iceberg waaw li nga wax dëgg la mooy la partie visible de l'iceberg mais boo xoolee ba ci biir da ngay gis ne euh, suñu problème bi ci jiitu mooy ñaari yi mhm. d'abord on a un problème de contrôle et de suivi xam nga réew bu ñu la ko joxee doo ko jiitee par des émotions mhm. maanaam toog nga rek dégg ñu ne la ab daara lakk na ay taalibe faatu nañ fa nga jël semaine boobu yëpp nga singali daara yi def ko une semaine foo romb taalibe jàpp ñi nga yóbbu leen seen dëkk ñi nga ne génnee nañ leen bu semaine boobu weesoo nga daal di jël lépp teg ci suuf mhm. nga toogaat ci réew mi rek dégg ñu ne la am na benn gaz bu kalaata nga commencé di contrôler gaz yi yu nekk nga dugg ci mhm. maanaam à chaque fois tant que émotion amul tant nit ñi tiituñu tant que nit ñi tolluñu fenn fekk doo agir loolu mooy di jiite réew par émotion te loolu je pense que c'est un problème lool nag li koy jiitu mooy problème contrôle <laughs> tey jii li ñuy expliquer ci Ndella Madior